salaamaaleykum Baxaw. maaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, mu nekk huit mars journée mondiale de la femme yow nga porte choix ñëw fii si maison d'arrêt des femmes ndax pour fête bi pourquoi ce choix. waaw tout d'abord maa ngi leen di nuyu euh, par rapport ak déplacement bi euh, du nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi suivre li may wax. choix bi dafa nekk loo xamante ne lu yàgg la c'est pas la première foi lu yàgg la parce que man déjà si camp bi laa juddoo fi may waxee nii fi laa juddoo. donc dafa am benn histoire boo xamante ne dafa particulier man ak ñoom et puis sama choix si jigéen ñi dafa nekk loo xamante ne pour man euh, lu yàgg la comme que je te disais que euh, man ak ñoom du tey et je pense que ku mu xam baxaaw xam nga chaque 8 mars wala chaque cinq décembre moom moo ko lay détenu nekk Liberté 6 euh, mu nekk loo xamante ne ne dañ ko yàgg def depuis des années parce que dañuy jàpp ne ne jigéen la ñu dañuy jàpp ne ne tey caabi fecce na leen ginnaaw erreur moo leen fi dugal et c'est normal tey lu may 8 mars mooy journée mondiale de la femme nga partagé ko ak ñoom euh, def benn fête boo xamante ne ne même bu dee benn une heure de temps la sax dinañ décompressé wu un tout petit woo si sa mbokk artistes yëpp franchement ñëpp ñëpp ñëpp wuyu si ma. mu nekk lu muy rafetlu mu nekk lu muy rafetlu. à chaque fois gis nañ Baxaw Baxaw sax mun nañ ne Baxaw léegi foo ko tuddee da ngay tudd social pourquoi Baxaw à chaque fois ya nga ko sànq 31 décembre wala 25 décembre 8 mars à chaque fois Baxaw day jéem a di unir nit ñi. lan moo leen di Baxaw social parce que man je pense que social dafa bokk ci li doomu aadama parce que doomu aadama déjà le fait que nga judd rek loolu social la déjà pour man def lu baax dafa amul amul amul limite. amul limite et du prison yi kese pour man def lu baax amul limite fépp fu waay war a mu nekk war nga mën a def li nga xamante ne social la donc du loo xamante ne ne soit si hôpitaux la wala si wala si prison yi la déedéet ñun yàlla moo ñu bindee noonu et je pense que ne tey ni ñu yàlla bindee nii doon na loo xamante ne ne noonu la bindee bépp doomu aadama nit ki da ngay am xol boo xamante ne euh, xol xol bu laab la da ngay am yéene si doomu aadama yi et nga jàpp ne ne yow boo amee am na koo xamante ne yaa ko tane tey boo wéree am na koo xamante ne mi ngi ci kaw lalu hôpital bi tey boo nekkee di dox ci mbedd bi am na koo xamante ne caabi fecc na ko ginnaaw et je pense que ne c'est des personnes ne dañ a bàyyi xel a dimbali c'est des personnes yi ne ne tey mooy suñu suñu suñu suñu mission ñun jàpp na ne mission bu ñu yàlla sas la boo xamante ne dañ ko war a def parce que du man rek maa yëngu quand si social je pense qu'il y a pas mal de personnes yi nga xamante ne ne même bu ñu nekkulee ci wàllu culture wala si wàllu leneen sax ñu ngi yëngu si social gis nañ tamit daaw 8 mars gis nañ mu tombé Sénégal kenn tal woon sax féete parce que événement am woon ren jii tamit 8 mars am na événement yooyu tamit xawoon am nañ problème ak seen ay jabar mu nekk violence boo xam ne à chaque fois ñoo ngi koy teg si gisee loolu. artistes am problème ak seen jabar. <laughs> bon yaa ma ah. bon juste rek de façon du violence moom Ah, jabar moom du artiste am problème ak moom je pense que ku di si nekk si ñun bépp doomu aadama souvent da nga am problème ak sa jabar je pense que am problème ne veut pas dire violence tey mun nga am problème ak sa jabar ngeen am benn malentendu ku nekk dem mais bokku la koo xamante ne day jàpp jabaram di koy dóor à chaque fois par rapport ak si ay détails je pense que jigéen déjà ñu ko jël di koy dóor wala di koy teg loo xamante ne antu na ko parce que euh, jigéen la comme on tey euh, yàlla may na ko loo xamante ne newul ci góor yàlla may na góor doole yoo xamante ne tamit newul ci jigéen je pense que chaque fois war nañ a dawal yërmande te xam ne ne aussi euh, bi ngay jël soxna dañ la ko jox ci farata ak sunna donc bu yàlla defee ba nga xamante ne ne Euh, demeetul noonu je pense que war ngeen mën a séparer wu mais je parle pas de artiste bi dóor wala et c' pour yow mi journaliste bi je pense que am na ay journalistes yu am ay problème ak seen jabar est ce que journaliste yi duñ dóor ko <laughs> uh-huh. mm-hmm. de la femme. Mm-hmm. lan parce que en fait dama koy def chaque année mais ñoom si seen biir euh, ak ak ak ordre bu may gars yi di jox. dañuy gis ne à chaque fois su ko defee day yem ci man kese ak samay moyen bopp ak sama doole bopp e je pense que ba léegi ça continue ñoom ñoo bëggoon tey mu mel ni parce que ñoom ñoo bëggoon quand même euh, journée la boo xamante ne ñoom ñu partagé ko ak ñëpp te ñoom ñoo bëggoon ñëp ñoom ñoo bëggoon ñu partagé ko ak tout le monde donc man si seen waay laa wax donc ku ma ci woo ne ma dama bëgg a ñëw dama naa la ah, tu es le bienvenu parce que ñoom seen choix loolu la bëgg nañu quand même nit xam ne ne bu yàlla defoon tey ñu génn suba bu ñu jógee sur les réseaux sociaux ah ne ah lii baa ngi nii franchement c'était très bien sànq rek maa ngi ci waxtaan ak koo xamante ne ne bële passé mi ngi fi woon 25 décembre passé mi ngi woon si détenu yi maa moom ma toog di waxtaan mu a mën ma ne ko a gaawee parce que ku ci nekk ñaan yàlla dellu si sa famille gisanteeg sa waa kër dundaat benn ambiance ambiance boobu nag ñu doon dund seen waa kër moom la ñuy jéem ñun def fii nii def benn añ waxtaan ak ñoom ñu toog waxtaan kaf ak ree essayer créer ambiance boobu même bu dee mënuñu ko sax mais mu fàttali leen tuuti si seen si seen si doon am yéen jabar du nekk yéen journaliste yi mais lan ma sam problème ak seen artistes yi lan ma sam problème yi lan ma sam problème ak seen yi non mais c'est-à-dire que man je me suis ne 8 mars yéen a koy wax rek mais man pour ñan chaque jour journée bu ñu sargal jigéen la man damaa jàpp ne cent 365 jours yëpp dañoo war a sargal jigéen parce que quand même euh, jigéen moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu def nu ñu mel jigéen la yàlla sargal jigéen la yàlla teral jigéen la yàlla euh, jigéen la yàlla teg foo xamante ne wax dëgg yàlla macha allah ndax budul woon si ñoom ah budul woon budul woon ñoom yaakaar naa ne kenn du judd si ñun tey mënoon nga nekk jigéen yàlla jox la doom nga am noo mel ak moom mais da ngay xool yërmande bu ñuy nekk si ñun dangay ngay xool nga feebar nampal guddi nampal daw subaak ngoon ba ba nga màgg ba mënal sa bopp je pense que ñooñu du benn fan. pour man trois cent soixante cinq jours yëpp dañu war a màggal jigéen. Hmm. macha allah beneen ah? di dóor jigéen ñi. journaliste di dóor jigéen jigéen ñi. poids ci musique yow

doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko ko lijjanti pour man et le plus important aujourd'hui moom mooy xam na ne ñun ñëpp a yem fa yàlla mooy man ak yow ak journaliste bi ñuy di romb ñun ñëpp a yem fa yàlla amul kenn ku gën kenn loolu li may gën a metti parfois loolu la le fait que les gens foog ne dañu gën ñenn ñi or que gënuñu fi kenn ñun ñëpp a yem fa yàlla amul kenn koo xamante ne Euh, defal na doomu aadama dara ci dooleem yàllaa ko may doole boobu donc chaque fois nga gis lu la métti mais après dangay ngay bàyyi xam ne ne yàlla loolu la la sas mission la c'était dans ton destin da ngay avancer ak moom ñu ngi noonu. jërëjëf si Diakhao. allez jërë ngeen jëf. kuréel gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar doom yaay. tey di muy 8 mars journée mondiale de la femme la ma waroon fii sa teewaay tey. waa tey na ku nekk xam na ni 8 mars la quoi te nag tey bisu jigéen ñi la. voilà ndegam ñi nga xamante ni ñoo nekk seen i biir kër tey ñoom la ñu war a bigal massamaak ñi nga xamante nag tey jii bu ñu sañoo nekk seen wetu njaboot xam nga nekk seen wetu wala ñu nekk seen wetu jëkkër yàlla dafa def nag ñoom ñu am ndog ndog boo xam ne jombul benn doomu aadama xam nga moo tax vraiment tey ñu ne bala ñuy dem fenn dañuy ñëw d'abord bégal leen ba pare ba seen xel daal ñu xam ni natt du wees am na ñoo xam ne ñu ngi fii tooñu ñu defuñu dara dañoo juum du dëgg am na ñoo xamante nag dañ leen a ba pare dugal leen fii moo tax vraiment ñun nag il faut ñëw bégal leen loolu moo waral suñuy tànk tey. ñu gis ne euh, mois de mars bële passé Sénégal ñu nekkoon si ay jafe-jafe yu metti si problème Adji Sarr ak Ousmane Sonko ça fait un an maintenant euh, te Adji Sarr ko wax te waxu jigéen la gis ngeen dernier sortom boo xam ne moom naan pour mu génn pour mu nalaw sax c'est tout un problème loolu yëpp muy sorte ay sorte violence noo dundee loolu. waaw mais xam nga loolu dafay dafay dafay contexte bu doy waar la ñu nar a wax nii ah mooy contexte Adji Sarr mais tey bisu jigéen ñi la. waaw moo tax bisu jigéen ñi la te nag xam nga man man jigéen ñi laa faral ah sérieusement parce que ñoom amuñu doole te fi mu nekk nii Sonko am na ay ay ay sa yoo xam ne ay góor lañ ñoo xamante ni buñ ko waxee ñëpp xeex wala ñu sànni xeer du dëgg parce que dañu far mais Adji Sarr am na ñu far moom te jigéen la du dëgg kon nag kaa bu doy waar la bu ñu war a traité ñu wax xale Sénégal la jeunesse nañu nekk ay nit du dëgg xam ni tey jii kuñ ci defoon loolu sa sœur du la neex. du dëgg voilà kon nag affaire bi ñi ñaan yàlla comme que mi ngi ci loxo yoon yàlla na ko yàlla yoon teel a leeral mais daal Adji saar jigéen la te bisu jigéen ñi la bu fekkee dañ ko tooñ nañ ko baalu wala ñu def ko ndàmpaay bu fekkee tooñ ñu ko tim loolu juge a xam mais daal tey bis bi seen bés la ñoom ñu ngi koy massawu waaw. waaw mooy li ma la wax rek moo tax ñu bàyyi lépp ñëw fii xam nga moo tax ñu bàyyi yëpp ñëw fii mais yëg-yëg bi may am rek mooy yëg-yëg koo xamante ni tey jii am na ku doon am na benn waykat bu doon wax naan nee na buñ ko doon jaayi marché dinaa ko jënd am yaay moo neex ñàkk yaay dafa metti am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci biti mais seen yaay dafa mel ni dañu ñàkk yaay parce que seen yaay gisuñu ko donc vraiment ñu ngi leen di massawu wala di massawu tim jàmbaar yi nga xamante ni ñu ngi fii tëdd te xam ni jombul kenn dëgg vraiment yàlla yàlla gaaw génne ci barke Seydina Mohamed